je vais déposer une plainte contre le ministre de l'Agriculture, M. Moussa Baldé, ce faux mathématicien ak ay groupam de statisticiens devant la Cour de justice foofu lañ ko war a plainter pour manquement répétitif notoire d'un service public diffusion de fausses informations entraînant de pertes de capitaux à des investisseurs et industriels sénégalais manipulation de chiffres en vue de tromper une haute autorité du pays je veux dire le président de la trahison haute trahison bon xaw ma dama koy waxee ci olof haute trahison et défense d'intérêts étrangers bon ñu ñëw ci protocole bi protocole bi dafa lié woon état du Sénégal huiliers yi importateurs yi ak regroupement bi mu bokk ñu tuddee ko RASIAT ba nga xam ne 2018 lañ ko tënkoon ñu ne woon gerte gu ne ci Sénégal mën nañ ko segal def ko diwlin ci biir Sénégal jox ko industriel yi ñu raffiné ko damay fàttali ne rek 154 lañ ci biir Rasiat en tout cas ñi bindu te ñun ñooñu ñëpp depuis deux ans wala bientôt deux ans kenn liggéeyu léegi nag lan mooy solution bi continuer de ravitailler les la Chine et les Chinois wala simplement penser à sa industrie parce que aujourd'hui vraiment nous vivons d'énormes difficultés am na ay charges fixes yoo xamante ne que chinois yi nekk fi bañ fi nekk dañ koy continuer du fay ANSD bi mu ñëwee di xool suñu secteur bi 2017 2018 pour benn trimestre trimestre mooy ñetti weer ci transformation gerte dans ci bassin arachidier bi yëpp maanaam fi ñuy bayee gerte yëpp nee na ñu ngi ci chiffre d'affaires de vingt deux milliards di contribuer ci PIB bi ci 0,1 di mobiliser 4172 individus mu constituer chaîne de valeur bi chaîne de valeur boobu ak chiffre d'affaires bi ma leen wax transporteurs yi ñu ngi ci ñii di yenu ñii di raxas bidon ñii di jaay bidon ñii di jaay xottu saaku jigéen ñii di jënd pat yi di ko transformer pour def ko beneen valeur ñoom ñëpp a ngi ci mais tey jii ministre de l' agriculture tey la noonu tey la na ñooñu ñëpp pour le bénéfice des chinois. problème mu chaîne de valeur bi du lenn lu dul protocole bi nga xam ne moom moo ñu lii ak Chine 2014 la commencé pour 10 ans maanaam 2024 lay jeex bu ñu jugul taxaw suñu problème dina continuer ba 2024 te duñu si mën dara en tout cas légalement pour man contrat bi ak contrat sàcc la contrat ñëw jël li ñu moom et surtout suñu matière première ndax ministre bi nee na ci loxo chinois yi instant bi 253 000 tonnes gerte mu ngi fa yi ñu xolli ba pare mooy maanaam 400 000 tonnes gerte xot alors que yow sa industrie locale boo leen boolee yëpp ñu ngi ci 80 000 soit 4 fois moins que li nekk ci loxo chinois yi te pourtant li chinois yi yor bu ko secteur bi amoon ñun ñëpp tout le monde y compris dinañ liggéey atub lëm man nag sama espoir dafa jeex bi ma déggee ministre bi génn télé ci conférence de presse bi ñu doon def mu ne ay waxam laay wax bés bu chinois yi yeggee ci 300 000 tonnes dinañ arrêté xool ndax Sénégal am nañ gerte wala amuñu gerte bon xaw ma nu ma koy waxee ci olof mais je dis que c'est pas professionnel comme démarche ndax dafa mel ni ab musicien bu war a génne albumam ne da koy génne ci nit ñi ba pare door a dem BSDA yaakaar naa BSDA moo jiitu génne sa album. donc pour man tant ñu ngi am ministre bi pour man c'est un ambassadeur ambassadeur u Chine la ci biir gouvernement wu Sénégal suñu chaîne de valeur du mës a dox les familles xaajali ko investissement bu ñu fi mënti def ku mu mënti doon en tout cas si la transformation dañ koy perte dama koy rappeler rek mu dem ñu jàngalaat ko parce que apparemment jàngul bu baax décret de deux loi 2010 15 du 13 janvier 2010 Souleymane Ndéné Ndiaye apparemment pour man ministre bi dafa perte lépp moyens yi nga xam ne moo koy permettre mu réfléchir pour le moment amuñu solution boo xamante ne mën nañ ko fi defaree jëmalee déwén solution wu léegi-léegi lañ soxla te solution wu léegi-léegi benn la muy ñu arrêté exportation chinois yi bu fekkee sax gerte gi des na ravitaay ravitailler demande nationale bi ñu améliorer protocole bi ak Chine ndax ministre bi génn na télé wala RFM matin grand jury pas bii bi mu mujjee génne mu ne chinois yi gerte yi ñu fiy jël yëpp di ko yóbbu bitim réew gerte diw la diw lañ koy doyee kon donc lan moo tax mënuñu ko def diwlin fii pour secteur bi yépp continuer di liggéey nañu respecté en tout cas ñi signé woon protocole mars 2018 bi nañ ko respecté ndax apparemment Sonacos rek a ko respecté woon yeneen huiliers yépp kenn gisu leen ci aussi ñu respecté li ministre bi bi mu ñëwee Touba ci visite de courtoisie bi mu fiy def mu ne jël na arrêté diwlinu gerte de 250 millilitres jusqu'à 5 litres du doonati dara du doonati lenn Sénégal lu dul dëwlinu gerte et loolu gis ngeen ci jamono Covid bi monsieur Sall ak ñi mu àndal diwlin ñi ñu doon joxe 5 litres la woon te du woon dëwlinu gerte dëwlinu tournesol la woon wala beneen xeetu dëwlin kon donc ñoom ñoom ñoom ci boppam violé nañ arrêté ministre boobu. wax dëgg yàlla ñu ngi dund lu méttee métti ci secteur bi depuis 200 nag boo xoolee li ñu investir fii. plus de quarante million mat na ko ña ngi toog amuñu luñ def suñuy employé amuñu luñ def aussi seen loxo jotul seen ginnaaw tey dañ ñuy laaj di ñu laaj ba rus nañoo jàkkaarlook ñun sax di ñu tegati yenn saat deuxièmement bi li gën a metti ci àdduna mooy borom kër goo xam ne nii xëy na di wuti lu def ci waa këram te xamul fan la koy wutee ji te wax dëgg yàlla bi fi lii di am ku yeewu dinga xam fi nga jëm boo wàccee di nga xam li ngay am te loolu gis nañ ne depuis deux ans yii loolu amatul mu nekk loo xam ne nii nag lu metti la te dara waralu ko nag lu dul chinois yi parce que dañu jël chinois yi ñu teg ko ci suñu kaw ñuy jël gerte gi di ko yóbbu ñu toog te leneen li nga xam ne nii moom moo ci moo ci moo ci gën a garaaw chinois yi nga xam ne ñooy jënd gerte gi ñoom pourtant dañuy créer ay emploi moo tax ñoom ñuy jënd gerte gi di yóbbu Chine donte dañuy perte ñoom seeni employé dana liggéey seen waa réew danañ liggéey loolu pourquoi suñu état ñun munuñu loolu protéger ñu ñun ñaanu ñu ndimbal ñaanuñu xaalis nan ñu protéger ñu liggéey ñun loolu rek lañ bëgg. boo xoolee protocole bi ñu amoon ñun ak Sonacos mën na ni ci état la jóge woon waaye nag da dafa taxutoon mu mu continuer dafa teel a jeex boo ak léegi nag wax dëgg état euh, gëstooguñu ci dara. ndax chinois yi mu bàyyi ñuy jël gerte gi di ko yóbbu moom mënoon naa ñàkk ndax dàpp naa am réew li koy doxal mooy transformation kon li gën mooy ñun ñuy transformer ak yeneen secteurs yëpp transformer loolu mooy doxalam réew waaye nag comme ñun réew mi la ñuy bàyyee gerte gi fi lay ñore waroon na ñun waa réew mi nu ko dundee tey nag su état taxawoon ne amul ay transformateur mën naa am loolu nekk dëgg waaye transformateur a ngi fi ñu ko mën a transformer ñu fi kon nan bàyyee matière premier bi ñu di ko transformer buñ ko defoon daal yaakaar naa dina dina doxal réew mi bu dee réew mi lañ bëgg mu dox waaw. vingt cinq personnes maa ngi ko doon employé waaw jigéen ñi raxas bidon yi ñu ngi fi gars yi liggéey ñu ngi fi bërigo yi ngay gis. pat lay def boo xam ne beneen matière la boo xam ne nii si diwlin bi lay jóge ñeneen ñooy ñëw di ko jënd si ñun traduire ko leneen di ci defar saabu saabu dànk bii ngay gis lu ci bari ci matière boobu lay jógee kon ñun te boo xoolee ñu ngi nekk cent 154 unité ci dëkk bi te am na ñoo xam ne ñoo ëpp doole foofu li nekk fii te ñoom it depuis deux ans ña ngi toog jàpp ñu ci dara tey nag ay père de famille lan bu dul dara ay sénégalais lañ dañoo am ay droit ci dëkk bi te nag ni ñëpp ni ko ñëpp di defee ñun mënoon nañ ko di ko defee noonu mais nag dañoo nekk ci dëkk boo xam ne nii ci ndigal la lépp tënku kon duñ révolté wu ci yenn yi dinañ wax nag yëkkati suñ kàddu wax li nga xam ne nii moom mooy suñu àq ak suñu yelleef ñu jox ñu ko mais nag mënoon nañ di révolté wu comme ñi ko ñeneen di defee di sànni xeer fii di taali pono di toj ñun loolu duñu ci fekk ay liggéeykat lañ mais nag nan ñu geesu jox ñu li nga xam ne nii mooy suñu wàll ci réew mi ñun ñaanuñu lebuñu saraxuñu ñun nañ protéger filière bi ñu mën a liggéey. appel bi ñuy lancé état mu arrêté exportation bi te bàyyi usine réew mi nu liggéey comme chinois yi ñoom dañ fee ñëw pour ñoom jël gerte yóbbu ñun jàpp na ne gerte gi mën nañ kaa bañ yóbbu liñ bëgg mooy su mu mënee ñëw sax jënd diw mën na nekk loolu sax solution la.